Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des like, merci de des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé, à hein. chaque fois de partager des informations, inbox sénégalais, fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal. Rokurukhari, Gorgokhari, ñu ngi leen di jaajëfal, ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar, yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm, nekk ci kaso yi, aussi erreur judiciaire ak génne leen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa, delluwaat leen seen i njaboot ñi dellu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars ñu, on avance ensemble dans la magie de Sport TV, l'actualité on continue l'actualité on va parler de kii di Saliou Ciss mi wax ci Sadio Mané nee na di ngeen gis benen Sadio Mané déwoon li tax mu wax ko nañ ci nay mais soutien total à nos confrères de Wolf bi nga xam ne temps yi yoon daf leen di nekk boom di parce que tamit euh, li nga xam ne mooy gi ñu pour diapel, leen ñi nga xam mooy nguur gi dañoo dem e et je pense que la liberté de la presse la et que comme je dis Sénégal nous mu métti ñu ñëpp ñoo ñun ñëpp ñoo bokk nañ ko xam gars yi nag exclusivité bi encore fii lañ leen koy joxe lii mooy logo prochaine coupe d' Afrique des nations war ci Côte d'Ivoire mi ngi nii ngeen nii CAF publié na ko mi ngi nii ngeen jëkku ko gis également nga xam ne mooy donc final Ligue des champions tey lay doon ah di ñaan war dem na këng waxee mag dem na ndeng taali bàkk war na mbaam diggante Manchester City de Erling Braut Haaland ak également nga xam ne mooy donc lii di Inter de Lautaro Martinez mais également que dire de Julian Alvarez Boy bi gars il a tout gagné presque. Machal a tout gagné. les Ligue des Champions en une année. Gaï, il aura exceptionnellement tout remporté en un, an et demi. qui Julian Alvarez. Gaï, Kini. kan la wax rek gars mooy que Luke Shaw bokk laay wax Luke Shaw gars yi kii en 2015 dafa damoon dam bu métti moom ngeen di gis ni ñëpp ne carrière am donc match la woon contre PSV Eindhoven finalement mu wéraat ba ñëw fi wane ne dafa baax ci joueur li xam nag mooy jamono ku ko amul doo fekkee kan mooy gagné diggante lii di ak également li xam ne mooy donc gi Glazer ak Cher bi par rapport kan mooy jënd li ñii di Barça ñoo ko tegoon ci kaw ndodd waa Liga mais Liga ak waa Barça d'accord tax na ba léegi fi mu ne nii waa Liga lépp lu ñu daanoon finance bi Barça ju teggi ko gars yi nag ne fi trahir ki xam ne mooy donc kii Fiorentino Perez kii na ngeen gis ni di Almani moom nag dafa war a semaine prochaine wax liste bi nga xam ne mooy joueurs yi ñu Ndiaye pendant ce temps Ansu Fati mom waxna agent am nee dem fen dafa bëgg tok di côté du FC Barcelone mom dal nee na bëggu fa jóge même bu fekkee né jamono ji Barça dafa soxla ay xaliss Mom demul ki nga xamné ne également moy Ferran Torres momit ah, Ferran Torres gars momit waxna né dafa bëgg tok ki nga xam ne gars yi di leen ko fàttali Ferran Torres temps yi dafa séparé wu ak ki nga xam ne moo nekkoon coroom nekkoon euh, kii di doomu Luis Enrique Luis Enrique sax nañ ci wax ci kanam ki nga xam ne nag moom mooy donc caissier caissier moom nee na kenn du ko def ci kees yi moom naa nee na daal bu gisee opportunité fu mu mënee jouer day daal di dem moo tax moom il est ouvert à un départ Franck Kessié le capitaine donc des éléphants de la Côte d'Ivoire wax également ci nga mooy Joshua Kimmich Mundo Deportivo moo ko wax nee na fi ne nii Joshua Kimmich daal dafa bëgg a ñëw di côté du FC Barcelone wax naa ne démb Xavi dafa ne moom bëgg na Kimmich te ba mu dajee Kimmich Kimmich dafa ne ko man dama laa fond loolu rek la ñu mais ne bu fekkee Kimmich dafa bëgg ñëw na def ne Lewandowski daal di dóor ci table bi ne dafa bëgg dem comme ça waa Barça mën a def leen ki nga xam ne nag également mooy Xavi Simons xam ngeen ne Paris Saint-Germain daf ko joxee mais dafa am option de rachat bu leen neexee moom Xavi Simons nag neen na jël décision semaine bi di ñëw nee na moom il n'est obligé à rien faire et par personnel nee mooy jël décision te na xool moo ko njabootam la lay jël ki nga xam ne également mu ngeen gis nii di Boateng Boateng Gueye dafa jóge du côté de l'Olympique Lyonnais l'ancien défenseur du Bayern Munich nga xam ne bu ñu bëri bu ñu koy fàttali bu baax a baax mooy duut bu métti boo nga xam ne Lionel Messi moom la ko duutoon ki nga xam aussi ne mooy McTominay McTominay vers Everton en tout cas waa Everton ñoom daal fi ne ñu ngi waaj a préparé nañ sax seen proposition pour daal di recruter ki nga xam ne mooy du côté donc de Manchester United mu ñëw Everton kii nag gars mi ngi nii Brahim Diaz ah Brahim Diaz gars officiellement de retour du côté de la Casablanca moom mi nga xam ne gars yi euh, ñii di Real moo ko jox ko Milan mais ba ñu ñëwaatee contrat bu bees ko defalat contrat bo xam day dem ba 2027 et pendant ce temps kenn mooy Leao gars yi encore information moom numéro 10 lay soldé woon Leao le joueur portugais donc du Milan AC jël na numéro 10 bi mom lay dal di soldé won ne xam na ne yan bi 10 na mais dina ko mëna a yanu ki nga xam ne Thiago Motta ancien joueur du Paris Saint-Germain mais également du FC Barcelone et aussi d'autres équipes Thiago Motta mom nee na day tok ci clubum ca Boyol Bologne ba nga xam ne gars fa la nekkoon entraîneur gay dal daal fi mu ne dañ ko bëggone a jël mais moom nee day tok ki xam William Saliba William Saliba gay fini fi mu ne nii nee na du côté de euh, Arsenal ñoom nee nañ ko da ngay toog Saliba ah gars yi neen duñ la ba da nga bëgg nga toog foofu ba tax na ñu ngi koy prolongation de contrat ki ngeen gis ni également gars yi mooy goal, bi nga xam ne fi mu mm, Chelsea bëgg daal di jël du côté des Blues et Chelsea mu nekk gardien numéro un en remplacement de Idris plutôt de Edouard Ndiol ko et de Kepa mi ko Qui ki nga xam indiqué. Luis même bu faites ne Aurelio De Laurentiis mi ngi insisté du côté de Napoli moom nag Luis Enrique selon les dernières informations moom nee dans la Premier League la bëgg a entraîner à moins que équipe bu mag a mag daal di koy ki nga donc Juli Ludovic julie ancien joueur du monaco de Monaco bi nga xam ne mooy final finale bu Grau, aussi ancien joueur de FC Barcelone Mom nak démissionné de son poste d'entraîneur adjoint du côté de l'Olympique Lyonnais qui nga xam alfonso nag Alphonso Davies gannaaw bi gars day dem ak du dem moom daal fi contrat ak Bayern Munich et il compte honorer ce contrat le joueur canadien Alphonso Davies nga Real Madrid ñi ngi insister pour la recruter Sadio Mané Sadio Kaiser magnifique Bambali champion d'Afrique Mane qui Bogoul moom mi ngi l'enfant l'enfant de Bambali il sera de retour l'année prochaine loolu daal benn coéquipier bu wax nee na Sadio Mané won di ngeen gissat benen xar kanam ki wax na moy Saliou Ciss mi siisul Saliou Ciss bi nga xamné gaay nak mom nag Sadio Mané dafa gañu gaay yi koy faté dafa dem ci club bo xamné ne bi moo nekk première saison donc yooyu yëpp da ci jouer ak gañu gañu met bi mu gañu mais nee na déwoon mën na len ko wax di ngeen gissat benen gaynde bu xiru dans l'entre de l'Alliance Arena mais également benen gaynde bu ñu woné né man may Sadio magnifique Kaiser Bambali champion d'Afrique ballon d'or Mané. Et on espère revoir ce Sadio Kaiser magnifique Mané. Muy Bayern ou le benen équipe. En tout cas, moi je souhaite que mon tok Bayern pour mon def ay preuve blata moy dem woné mon patron là parce que sinon vous démé day dem sur un coup d'inachevé, sur un goût d'inachevé. Guys, c'était les informations que je voulais vous donner. Wayland len like mais surtout Wayland len di abonner. Abonner len gars yi wala bëgg jël information yi. Li ma wax sa su nek rek lu bax ci lu bon ci ñun la jangel